diaspora sopp na bi cher internet yu Dakar Buzz TV dal leen euh, jàmm dalat leen jàmm ci li gën a fës ci yëglekaay yi ñu commencé ko enquête yéeni kaay mi dellusiwaat ci raxas gi nga xamante ni président de la république doon na ko raxas ni ki démb sunu justice bi yéenekaay bi di xamle ne nomination laa la wax kon tulleeg male gannaaw jàkkaarloo gi mu doon jàkkaarloog magistrat de la magistrature ba mu ca moom président de la république xaarut sax ay minutes laa la wax commencé raxas gi tàmbalee dàq nag nga xamante ni ñoo gënoon a sonal njabootu Ousmane Sonko yi ak leader bu Pastef Pastef yéenekaay bi xamal nañu ne Maham xam ak yenn magistrat yi ñoom ñëpp jën nañu leen transféré nag ca diwaanu Tambacounda affectation yoo xamante ni la mu gën a nurool mooy punition ci niñ doon def laa la wax ci jamono bi Ousmane Sonko di nekk ci opposition bi mbir yi daal sanction lay nurool léegi nag ci Ndakaaru Njaay gi na xel yépp nekk ci Ibrahima Ndoye ndax moom la nguur gi yaakaar ci dossier yi nga xam ne moo ñeel na corps de yi Sud du Quotidien ne démb ca conseil supérieur de la magistrature waxtu la fa président Bassirou Diomaye Faye def rek génn daal di commencé bale nag sunu justice justice bi yéenekaay bi ne doyen des juges Maham Diallo ma ñu miinoon ci dossier bu Adji Sarr jëlee ko ci Ndakaaru Njaay yóbbu ko ca Tambacounda Abdou Karim Diop procureur de la République moom itamit dàq nañ ko yóbbu ko Tambacounda naka noonu juge Mamadou Seck moom ba ci Amary Diouf mi nga xamante ni moo nekkoon président cour d'appel bu Dakar boroom conférence bu presse bu rëy ba laa la wax fi toll nii remplacé nañ ko moom ak procureur général Cheikh Bakhoum yéenekaay bi ni moo ñeel régime Macky Sall bu yóbboo ñu ne équipe ba ko war a liggéey nag fi mu toll nii taxawal nañ ko gannaaw raxas gi président Bassirou Diomaye Faye def nii ci justice bi li ci des nag moo di fast track ci dossier yi ñeel rapport corps de contrôle yi Mouhamadou Mansour Mbaye moom la ñu nommé léegi mu jiite na cour suprême Ibrahima Ndoye nag moo nar a topp ñi luubal alalu askan bi bokkoon ca nguurug Macky Sall ndax moom la ñu nommé nag muy procureur de la république même juge Sabassi Faye bu Ziguinchor defal nañ ko promotion ndaxte léegi moo nekk président bu tribunal bu Fatick Vox Populi bi nga xamante ni président de la république doon doon na ko amal ni ki démb nag ci suñu justice bi yéenekaay bi ne boo bëggee dégg démb laa la wax bale bu ànd ak punition moo am ci biir justice bi ñasano loon Ousmane Sonko ci dossier yi ñoom ñëpp mujjee nañ leen a ña ca gën a bëri nag kenn dàqu leen sax dañ leen a transféré ca Tambacounda soriwaay baag tàngoor boobu moo tax yéenekaay bi dañu xamal ne exil la ñu def nguurug Bassirou Diomaye Faye gii ka ñu njëkk a sanctionné nag mooy Abdou Karim Diop mi fi nekkoon procureur de la République teg ca doyen des juges Oumar Maham Diallo mi juge Mamadou Seck bi nekkoon ci deuxième cabinet bi ba ci El Hadji Issa Ndiaye ak Mamadou Cissé Fall ñoom ñëpp génnee nañ leen Ndakaaru Ndiaye gi yóbbu leen ca Tambacounda ba ci Amady Diouf mi nga xam ne moo nekkoon premier président cour d'appel bu Dakar moom itamit rocce nañ ko de mook Ibrahima Bakhoum mi fi nekkoon procureur général affecté nañu leen ci administration centrale bu ministère de la justice yéenekaay bi ne fi mu toll nii day defante gi mu ngi mel nettul leeg gi fàttewuñu seen jaar-jaar ña leen doon teg métit dàq ñu ngi lay sanctionné nànk ta coow jugul ci mel ne agence judiciaire de l'état bi nga xam ne sonaloon na lool Ousmane Sonko mi ba bay dossier bii di dem ca CEDEAO sax dafa sonaloon Ousmane Sonko moom Yoro Moussa Diallo mi tamit jot na sanction de ndax léegi wàccee nañ ko nekkatul leen lu dul avocat général ca cour suprême yéenekaay bi ne sénégalais yi daal tur yi ñu war a jàpp ne mooy équipe bu bees bi nga xamante ni moom la nguur gi teg ngir ñu jubbante suñu justice nga xam ne moom la ñu wóolu def ko muy procureur mi nga xamante ni procureur général bépp rapport boo xamante ni corps de contrôle yi def nañ ko ba noppi ci taabalam lay nekk moom Ibrahima Ndoye yéenekaay bi desuwaat tamit ci kaawu Sabassy Faye mi ñu defal promotion jëlee ko Ziguinchor ga mu defee woon jaloore def ko nag léegi président tribunal grande instance bu Fatick naka noonu tamit Ousmane Racine Thion moom la ñu tabb léegi mu nekk président tribunal bu grande instance bu Mbour ca cour suprême tamit yéenekaay bi xamal nañu de dafa nekkoon doon buuru ko bummi ci jamonoy Macky Sall dàq ko de ko de moom Siré Ba jël place ko Mamadou Mansour Mbaye waaye yéenekaay bi xamal nañu ne ca Tambacounda day juge yi nga xamante ni envoyé nañ leen fa mbir yi di mel na sanction askan ba nag ñoo ngi naqarlu lool lan moo tax yi nga xamante ni buñ leen déggee ñu bëri seen xel dem ci dossier Ousmane Sonko yi nga xam ne jàpp nañu ne nañ ko doon doxalee jaarul yoon ñoom da lañ fa envoyé waa Tambacounda nag mer ci ba futu jàpp ne nañ leen indil yeneen i juge ba mu des équipe bii ñu fa envoyé waa APR moom ci biir yéenekaay bi li ñu jàpp mooy mbir yi li muy saf mu di defante waajal nag singli goo xamante ni def nañ ko njabootuk Macky Sall gi secrétariat exécutif bu APR bii xam ne ci biir yéenekaay bi ne li ñu gis laa la wax ci conseil supérieur ndax ñun li ñu gëm ba gëm mu di ñiy jiite réew mi jamono ji ci defante lañ nar a jëm ak ñun defante goo xamante ni genre vengeance la ngir singal lu ñu ñenn ñi tamit ñu daal leen di topp ci yoon ñoom waa APR di xam ne ci biir yéenekaay bi ne d'accord nañ réduction des comptes de képp ku deful lu dul yoon ñu topp la ci yoon waaye singali waate gi dara jaru ko nag ci biir réew mi te yaakaaroon nañu ne bu fekkee ne am na ñu ñu war a convoqué ci wàllum yoon dañuy sukkandiku nag ci corps de yi ñoom ñoo defoon seeni rapport waaye tànk yi nguur gu ci njabootu Macky Sall bi ne lépp lu nguur gi mën pour diaboliser opposition bi rawatina njabootu Macky yi ñoo ngi koy def balaay élection législative yi di ñëw ñenn ñi sax boo moytul balaay élection yi di ñëw ñu commencé jaabante ci yoon lépp ngir mën ñu néewal doole yàq sunu der ba noppi nag singali ñu Mansour Faye Gorog Macky Sall bii nekk maire bu Saint-Louis moom mi nga xamal sénégalais yii ne bu yóbboo seen xel dal ndax man dèjà amul benn rapport benn rek boo xamante ni ci corps de yi épingle na ma moo xam ci sama ministère ci sama mairie wala fonction bu ma mës a yor amul benn rapport boo xamante ni tudd na ma ci kon nag bu yóbboo seen xel dal ndax singiliwaate gii ñuy wax tamit danañ ko def ba pare kenn du fa dégg sama tur laas yéene kaay ne mbir yi daal revanche des vainqueurs lay nurool ña doon sonn ci dossier Ousmane Sonko bii doon ci def lu baax yëkkate nañ leen ba ca kaw a kaw fi mu toll nii njiital Pastef bii ñoom lañ mujjee envoyé ca Tambacounda de mel ne leen di sanctionné yéenekaay bi ne bépp juge boo xamante ni nii impliqué woon nañu la ci dossier Ousmane Sonko beeg Adji Sarr dañ laa mujjee booleeg say moroom yóbbu leen ca Tamba ñoom ñu ngi ñaawlu li ni mel ndax jàpp nañ ne mérito nañ lu nekk ba mu des nag ñu leen di envoyé ay juge yoo xam ne ku xam seen démb doo yàkkamte ñu ñëw ci sa dëkk en tout bi desuwaat na ne yëkkati dossier Cheikh Béthio Thioune moom juge Ibrahima Ndoye moom la ñu mujjee la République même pôle la République jël na ko dàq Maham Diallo Abdou Karim Diop juge Mamadou Seck ba ci juge Issa Ndiaye ñoom ñi sonaloon Ousmane Sonko ci ñetti at yi ñu génn ñoom ñëpp laa la wax dàq nañ leen génnee leen ci tribunal bu Dakar naka noonu Amadou Diouf ak Ibrahima Bakhoum ñoom ñëpp yóbbu nañ leen au frigo te duñu laale laa la wax ak dossier yi ñeel rapport corps de contrôle yi maanaam équipe bu bees tàq ñoom la teg ngir ñu daal di suñu justice su réew rawatina nag ci rapport yi nga xamante ni corps de yi def nañ ko juge moom dañ i tamit defal nañ ko promotion yéenekaay bi di fàttaliku nag audace ba mu amoon ba santaane woon ñu jëlaat Ousmane Sonko mii dugal ko ci liste électorale yi moom juge Sabassy Faye tey jii moom la def muy président tribunal grande instance bu Fatick libération yéenekaay ne kaay ma ma la ñu ñu dàq jàppal ma xam Diallo mi fi nekkoon doyen des juges dàq nañu ko Abdou Karim Diop mi fi nekkoon procureur de Dakar dàq nañu ko juge Mamadou Seck mi nekkoon juge deuxième cabinet bii dàq nañu ko Mamadou Cissé Fall mi nekkoon président tribunal grande instance hors classé bu dakaar dàq nañu ko El Hadji Issa moom mi proclamé woon condamnation bu Ousmane Sonko dàq nañu ko ñoom ñëpp la ñu boole laa la wax def leen benn équipe jëlee leen Dakaaru Ndiaye yóbbu leen ca Tambacounda yéenekaay bi ne sénégalais yi kay tur yi ñu war a jàpp mooy Ibrahima mi nekk nouveau procureur bu Dakar Dakar mook Moussa Thiam mi ñu def léegi procureur adjoint bu Dakar ak Saliou Dikko mi ñu def nag procureur tribunal Pikine Guédiawaye naka noonu Cheikh Diakhoumpa moom moo nekk léegi procureur bu Rufisque Modou Soxna Thiam mu nekk procureur bu Thiès Augustin Faye mooy procureur bu Mbour Baye Thiam mooy procureur bu Saint-Louis La Tribune yéeni kaay ne ak luñ ci mënti wax tam nañu xam ne remaniement bi président de la République mu ci jublu mooy jubbanti nag suñu justice bi njabootu Macky Sall yi jiwoo Ibrahima Ndoye ak Moussa Thiam yéenikaay bi def na ci taxaw seetlu ne boo moytuwul njabootu Macky Sall yii ñoo leen nar a sonal gannaaw ba ñu dàqee juge yi nga xam ne bu ñu doon seetlu ci dossier yi gën a sonaloon opposition ñoom ñëpp nag lañ mujjee raxas fi mu nii ci justice bi en tout bi xamal nañu ne Tambacounda moom am na ay gan gan yu mat gan ñoo xamante nii waa Ndakaaru miin nañu leen lool bokk na ci juge ma xam Diallo ak Mamadou Seck ak règlement de compte lañ nar a def ci seen kaw l'observateur ne en tout cas taxaw gi daal lenn la mooy am na ci ay juge yoo xamante ni récompensé nañu leen am ci ñenn ñoo xamante ni dañ leen a sanctionné ñenn ñi am promotion lépp yéenekaay bi desuwaat na ci ne am na ay kanam yu bees am na ay kanam yu bees yu ñu gis suñu justice bi ñoo xam ne mii ni ñu leen woon ñoom la président Bassirou Diomaye Faye yëkkati teg leen ca kaw ci administration centrale nomination bu dee nag am na ñoo xamante ni rafet la wuñu nomination yi président de la république def du ñenn ñu dul secrétariat exécutif bu APR maire ba futt la ñu def laa la wax ci équipe bu bees bii nekk ci justice bi ndax jàpp nañ ne président Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko defante la ñu nar a def ak opposition bi sukkandiku ci justice ngir wàññi doole opposition bi topp tamit njabootu Macky Sall gi ci dossier yoo xam ne laalewul sax ak rapport corps de yi Tambacounda ga ñu jàppee ne nag képp ku ñu war a sanctionné fa nañ lay yóbbu ñoom waa Tambacounda mer nañ ci ba leen benn yoon yéenekaay bi dañu xamal ñi ci assemblée nationale nag député yi jël nañ seen responsabilité talaata bi ñu jëm nag la ñuy ubbi seen session extraordinaire ngir mën a jubbanti nag seen réglement intérieur bi ñoom député yi dootuñu toogati di xaar laa la wax président Bassirou Diomaye fay mu leen di revenir ci lettre bi ko président assemblée nationale bi xaatimoon ñoom daal ñoo ngi ci seen liggéey bëgg ko def nag fast track ngir premier ministre Ousmane Sonko mën na ñëw def déclaration de politique générale am ci ni mu gën a gaawee <laughs> yàlla bëri de sutura ñu yéen nag jàmm mbokk yi ba suba ak jàmm allah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 tey lay tàmbali.